ñeenti waxtoo genn wàll ñu ngi leen di gërëm bu baax a baax ci kóolute gi xibaari wolof yi ci yaatal ngeen ci ànd ak Makumba Bey STS ba nekk ca kees juróom-benn téeméeri liggéeykat ya ñooy ñaxtu bu yàgg ba léegi la gouvernement bi ni woon li ci war def nañ ko ci ngir mu doxaat ba tey dara ñu bëgg Macky Sall wàccoo ki digéem ñetti at ci ren ji naka ñu nekk ci chômage technique beneen programme d'urgence bu jëm ci wàllu voirie yi ak defari réseau téeméeri milliards ak ñeent fukk lay jar Mahammed Boun Abdallah Dionne woo secteur privé bi ñu dugal ci seen loxo moo ko doon lancé tey ca Diamniadio campagne ub agricole njaayum gerte gi amul benn problème ministre de l' agriculture Moussa Baldé moo ko wax mu ni point de collecte yi doy na te baykat yaa ngi jaay Guy Marius Sagna ak lenn ca gaaña tey jii la leen doyen des juges du déglu ginnaaw bi mu ko tàmbalee démb ñaareelu pàcc bi tàggat yaram Sénégal classement FIFA ba léegi mu des ci bopp bi ci Afrique quartier vert li ci yéenekaay yi lañuy ñuy daaneele nouvelle société des textiles du Sénégal NSTS euh, bokk na ci lu gouvernement bi doon damoni def nañ ci xaalis bo xam dina tambali wat ba bolé won ko ci bilan ji juroom juróom téméré téeméeri kat ya ñom ñoo dajé nak ni bobé ba légui toogaay bi yàgg na te dara wul di fàttali président Macky Sall ay diggéem fofé bëgg itam moom président de la république euh, mu daal wax lan moy jafé jafé bi fimné ni ñom nii ñoom ñoo ñee nag tey jii seen ndaje ma ñu amaloon ci président diggéem bi Cheikh Anta Diop mënu fa togalon nouvelle société textile de DNSTS ak ñi yëngu ci wàllu filature ak tissage nekk fii ci diwaanu Thiès nee nañ ay at a ngi ni de usine bi bi fi Macky Sall dikkoon ne nag dañ koy suqaliwaat mu dooraat ay liggéeyam boobee ba léegi ñi ngi xaar waaye dara doxagul la Latir Ndele Fall nekk secteur général bu syndicat national des industries du textile du Sénégal. li tax ñu génn tey mooy affaire bi yàgg na contentieux bi ba entre STS ak l' état du Sénégal ñu ngi xaar depuis ça fait plus de deux ans trois ans te tey bu ñu amoon tey coton am tey électricité machine yi ngeen gis machine yu bees la c' est les derniers cris fii boo soxla rek mën nañ la ko defal fii te ñun sous région transition bi fi mu ne ñom ñep ñi ngi ñuy xaar kat yi fi nekkoon bari na emploi direct ak emploi indirect même jaay ko caaf yi ci biti dañ doon gis seen bopp usine bi ben régime ñew en 2000 arrêté usine bi régime libéral PDS usine bi li mu yor ci ay travail ëpp na 600 moy Macky Sall bu mu bàyyi autorité ci yi di ko influencer

tax ndaw ñi am lu ñu jàpp nee nañ sax cees usines yii de la amoon ak chemin de fer mel na ni Thiès dunatul ndax ñàkkam xëy RFM Thiès Cheikh ante Diop. directeur usine ba gannaaw bi lees ci jokkook moom lu mu yaakaar ne mooy tontu ci li euh, ñaxtu di yëkkati mu ni bu leen dégloo ba noppi nag ci lay tontu kon jombul beneen jotaayu euh, xibaar. ñu daal di wax ci euh, mobilier national ak gouvernement bi mébét ma mu amoon muy fukk ak juróom ci li ñuy laajati ci wàllu commande publique ñoo jox leen ko ñu ni tey jii daje nañ ci atelier boo xamante ne nii bëggoon nañ daal xamale leen ci euh, wàllu xalaat euh, noo xam ne noonee la ñuy def nag ba mën a am lu ëpp sax 15 pour cent yooyu te itam gën a mën a làmbaat yeneen xeeti marché umu kalsum li 2014 ba léegi njiitum réew Sénégal Macky Sall dafa jëloon téeméer boo jël fukk ak juróom daal di ko jagleel commande publique yi ngir artisan sénégalais yi mën cee bénéficier wu ak bile décision état bi nag bëgg na gën a gunge ñi nga xam ne ñoo di ouvrier yi ngir ñu defar ay meubles yu am qualité pour administration bi Maguette Sène nekk directeur matériel transit administratif. solo rencontre tey bi nag moo nekkoon ñu xool meuble yooyu ñu ñuy livré tey ji waxatuñ quantité parce que boo déparé ci 193 millions dem ba 1 milliard ba teg quantité bi am na solo mais tey nag li ñu dajale lay sut mooy qualité. bu coordonnateur projet mobilier du Sénégal ñeent concept le ñu war a jël ngir qualité productivité bi muy bu njëkk di formation ak financement Saloum Ndiaye. gunge bi ci ay formation lay doon ci wàllum bi lay le coordonnateur du euh, ministère des finances direction générale des budgets wax na ko sànq war nañu mun a xool yeneen euh, këru état yi nga financement ñu mun le lëkkaloog Pour pour def ko. bu ci président confédération nationale des organisations association patronale et artisanale du Sénégal Japp na ni téeméer bo jël fuk ak juróom yi ñu daal di ko jagleel commande publique yi dañ ci wara duggal dugal itamit lii di code des marchés bi moom mi léegi ñaawlu jafé jafé yi am ci walum facturation yi am di Moustapha Thiam. DMTA musul jaay DAO te DAO dañ koy jënd dans les autres structures ay fuk ju nekk lu top. saa bo xam aussi DMTA may nañu lenn suñ la joxé commande ñu jox la 500 meubles par exemple nga livrer 100 meubles soo dañ lay fay 100 meubles yooyu nga mën a dem financer ya dé. bi lé dajé

ci la ñuy eh, tabax eh, yenn mbedd yi ci biir eh, dëkk yi ak itam gasal leen ci ay kaniwoo ki rigol yu yóbbu ndox ma téeméeri milliards ak ñeent fukk la ci gouvernement bi war a def bu sottee ministre d'état secrétaire général présidence de la république moo demoon tey jii nag jiite ji ndaje ma ca ab Abdou Diouf Diagne liggéey bi ci at délégué général à la promotion des pôles urbains en matière de route nekk de route aménagée en deux fois trois voies deux fois deux voies nous avons huit châteaux d'eau d'une capacité cumulée de 6000 mètres cubes trois bassins de stockage de 22 mètres chaque mu nekk lu am solo assainissement en eau usée 24,7 km, en eau pluviale vingt-neuf virgule mu nekk lu am solo aussi électricité bi aussi 630 cent kVA am solo la avec des réseaux de distribution ñëw ubbi ndaje ma Mohamed Boun Abdallah Dionne ministre d'État secrétaire général de la présidence de la République di tàllal loxoom ñi nga xam nak ñom ñoy secteur privé bi ngir ñu duggal seen loxo ci liggéey yi le Sénégal Sénégal xam ngeen ne dafa engagé wu ci li ñu du PPSE vert ñu leen di xamal ne nag lépp loo xam ne moom moo ca war pour sàmmoo ko dinañu ko def ma tourné nak wax ak doomu réew mi di leen ñaan ñu daal duggal seen loxo ci projet bi ndax bu boba di mën mëna duggal koom-koom bu bari ci keesu réew te it dinañ mën a jox am xëy ndaw ñi ak jigéen ñi. les jeunes les femmes. kilifa yi di xam ne ne tamit entreprise bi nga xam ne moom moo yor liggéey bi du ñu ko seetaan noonu saa su nekk danañ dem di saytu ndax app bi mu leen joxoon dina mat waaw mbala déet RFM Rufisque Abdou juuf Diagne. mbay mi campagne bi bi traite bi taxawee léegi. jooy yi bëri na waaye ministre de l' agriculture moom jàpp na ni nag fi mu ne nii lu mucc ayib la ñuy def ci wàllu liggéey des point de collecte yi na te gerte gaa ngi jar moy l'essentiel mom Moussa Baldé mom moko wax ñu déglu ko ci micro soxna Awa Mbaye lolu euh waxu euh, Mahal Sabatel la parce que même bo démé ci luuma bo jaayee 275 ana sa gerté ana sa ñu wax né lolu c'est désastre donc ñun lu ñu yitte mooy béykat bi mu jaay gerte am euh, loo xam ne upp na deux francs té lolu mo am tay nga jaay ko ci luuma wala nga jaay ko fenen waxu ñu mais ñun dañu gën arrêté pour wax né il faut que nga dem ci point de collecte parce que campagne il faut que ñu organiser campagne bi nak deux semaines rek la am ñu ngi fexe ba Sénégal fu ñu am bo xamné ne euh, dem plus de un demi kilomètre te doo am sa point de collecte li ci des nak ñukoy wax xaw ma lu tax ñu wax wala xëy na ñuy wax ñoom dafa am liñ ci jublu mais gouvernement Sénégal campagne bi nu mu tàmbalee ñun gis nañ en tout cas mu ngi jaar yoon te béykat bi béykat yi contane nañu te dinañ fexe ba ñu kontaan. ba campagne bi jeex. ñu bëri nag jàpp ni campagne bi euh, sooxe na ministre bi doon ci dalali xel tey nii lii leen yitteel rek mooy na gert gi jar naataangoom bi yor wàllu wér-gu-yaram li mu yor li ci sooxe mooy garab goo xamante ne nii fu ko waay bëgg mën ko faa fekk jënd ko fa ak rupture de médicament yi ni mu bëree di euh, garab yi moom nag mu ni pexe am na ci Abdoulaye Diouf Sarr tey jii ci ndaje moo xamante ne nii la doon euh, jiite ci wàllu système de santé ca la ko ca la ko Salimata aw Kalambito bu ngeen jëlee réewu àddina yëpp même réew yi gën a mag France ak feneen des fois day am problème médicament bu ñak médicament bu ñaké tam il faut ngeen xam lu tax mu ñak mu jël kaw sérum antitétanique parce que da ngeen di confondre ñaari mbir sérum antitétanique ak vaccin antenne dafa wute sérum bi nak mën na ñak parce que firme bi koy défar daf né défaratu ko bu ko défé nak il faut ñu trouver ay solution vaccin bi nak amna da te na né sax bu ñu ñafé bu baax ci politique de vaccination bi mën nañ dem ba sérum bi dootu soxla trop parce que amna na réew yu mag yo xamante la question du sérum dafa nekk quelque chose de marginal parce que presque ñep dañuy vacciner wu a priori mais je beneen waxtaan la bokkul ak question bi nga ma mais dama la bëgg a wax rek ne suñu réew mi bu ñu yaakaar tous les jours pharmacie nationale d'approvisionnement moom mooy gérer médicaments essentiels yi mu plus de 800 molécules yoo xamante pour que mu dem si structure publique yi privée yi dafa am par le biais d'un circuit d'approvisionnement mais nous gérer entreprise xam nañ de temps en temps La gestion de stock day am li wax tension de stock day am des problèmes de rupture dû à réseau d'approvisionnement mais l'eau, nous ñu ci le système donc je suis rassurer sénégalais euh, ministre de la justice euh, garde des sceaux moom nag euh, ñi nga xam ne démb ci guddi ñu ngi leen doon xibaar ni mooy femme juriste yi yàkkamte nañ loi bi ci wàllu criminalisation viol bi nee na loolee nag euh, ku jëkk a jëkk borom dekki da nga tëddaatas lëf njiitu réew mi faw ñu xaar ko ba mu definiir loolu ci wàllu politique penal mu yëkkati kàddu yi moom moomu tey ji nag ci ndaje mu ñu doon amal Malick Sall ci micro Amadou Sabar Ba. Vous savez, chacun a son xam ngeen ku nekk ak nu muy gisee mbir yi comme ci loolu nga fàttali.

téeméeri junniy wanag ngir gone yu jigéen yi ku sa baax eh, dabati nga mën a caa dem nde fan yële déggoon ngeen nag ñu ni am na ci ñoom gone yu jigéen yi ñoo xamante ne nii bu leen loolu dabee di mbiri jigéen dañuy toog ba ba mu jeex ndax buñ demee école itam lay war ci wàllu set geek euh, seen euh, wéetaay duñu ko mën a am looloo tax nag ñu wut itam ay kit yoo xamante ne nii loolu dina soppeeku bu baax a baax tey jii nag projet boo xam ni waa Pathfinder ñoom ñoo ci ànd ak waa UNIFAM ak ministère de la santé ak euh, ak assainissement ñoom ñu yor wàllu wana yi ñu ànd ceeg leeral yi Nafissatou Sylla mënu toogaloon ca ndaje gestion hygiène menstruelle du xool naka la ñuy jigéen ñi jàng bu ñu tolloo ci gis antu ci école yu bëri ci Sénégal projet boobee nag ñi du ministère de la santé fondation Pathfinder ONU Femmes à conseil de concertation pour l'approvisionnement en eau et assainissement GHM li ko tax a jukk di fexe ba xale yu jigéen ñi saa ñu gisee mbaax ñu Sonko di formatrice insert projet bi la nag day tax xale parce que bu fekkente ne règle yi bett na ko mbaax mi bett na ko day bàyyi lépp daal di ñibbi ndax day ruus taché yére mi bu yére taqee ñu war ko reetaan ak yooyu waaye tamit ci biir wanag yi mu am ndox bu doy am ay saabu yooyu nga xam ne bu nit ki amee lu ko bett mu mun a defaru. projet bi la nag ministère bu yore wàllum ndox mekk cet gi fonk na ko loolu ba tax na nag mu amal programme mu teg téeméeri junniy latrine ci biir l'école yi Ibrahima Dieng di représentant ministère bi le am na ñu ci defar ba pare am na bu ñu defar Gaawaan région de Diourbel am na bu ñu defar Ngën Saar région de maanaam day am day doon toilette yoo xam ne dañuy séparer douche su xale yi xale yu jigéen yi ak xale yu góor yi mais ci biir douche su xale jigéen yi dañ fa def benn douche cabine boo xam ne mais boobu dafa dafa am ci service jeunes yi fi ñu mun a changé woo benn box dana am ndox aussi bu ñu changé woo fa ñuy sanni lepp dañ ko prévoir ci box bu ñu wesso lolu sax ñi nga xamantene ne ñoo sumb projet bi bëgg nañu li di GHM ñu daal di koy duggal ci politique de santé publique yi Mbarou Gassama mom moy que ñu wax ko buñ ko waxé ci lañu ñuy commencé di def ay budget dinaan li kat wax nañ ko régler bu fekkante ne jigéen ñi buñu ñu gisee mbaax dañuy toog ndax école ba amul toilette école ba amul ndox yeen say yi seen loolu dab leen ci euh, ñi nekk en classe dañuy obligé ay cours ba dem ñibbi seen kër loolu day tax diggante réussite jigéen ak réussite góor écart bu day yokk. GHM nag am na benn volet boo xamante ne góor ñi la ñuy waxal ci naka la ñuy mën a am compréhension si seen i moroomu jigéen ci biir lekkool yi ñu doon ñu leen di mën a yërëm ak ñi leen di jàppale.

En presse écrite, je demande à Lei Fatou Djeridjani, major, de prendre son diplôme lu ëpp fanweer étudiant génn ci CESTI ñoom nag ay journalistes yu bees lañ ñoom ñëpp dañuy tes xibaar waaye nag ci wàllu ne ñu leen di xaar bu baax a baax ñu respecté ñu sàmmonteeg ak charte métier bi éthique ak déontologie waaye kii di Aïssatou Mbose Seck bokk ci ñi génn option télévision né mom loolu ragalu ci benn yoon. waaw CESTI CESTI def na ñun ay valeurs journaliste que lépp lu mu war a jottali dafa war a leer mu soog ko wax te yaakaar naa ni CESTI def na loolu si ñun Buri Jaxate nekk diplôme ku bees option radio, moom itam am même kaddu. y a les tentations du ñàkk ñu jëm la corrompre loolu lépp ci monde journalisme la bokk mais loolu lépp day fekk nga pare sur tous les plans que ce soit éthique d'abord ak déontologie bi nga xam ne jàngoo ko ci biir école bi. boo xoolee ci lu bëri journalistes yi dañ leen di critiquer ci wàllu éthique ak déontologie nu yenn lobby yi di leen contrôler madame Cousson nekk directrice CESTI jàpp ni ni lekkolam saa su ne day deflep ngir jox étudiants yi luy tax ñu respecté len té bala nga dugg CESTI ci xam ngeen ni sélection bi yombul bo duggé duggee ci ñu jàngale ñetti at bo génné waro euh, nangu tentation sa liggéey nga war ko def ci yoon bo tëddee nelaw.

ñu leen di ñaanal mu jig leen te seen mébét ci métier mi yàlla dogal mu antu gi Marius Sagna ak euh, ñeneen ña tey jii nag euh, lañu leen war a déglu doyen des juges war a wéyal kon déglu gi ginnaaw bi mu tàmbalee demb ak Babacar Diop ak ñan ci ñi mu njëkkoon euh, giseel tàggat yaram Abdou Diouf maa ngi lay nuyu. maa ngi lay fay El Hadj Makumba Bey. ñu di ko tàmbaleeg football classement FIFA. ba léegi Sénégal mooy wéy di jiite yëf yi fii ci Afrique waaye jàpp leen ni euh, ci àdduna bi moom euh, Sénégal ci ñaar fukkeelu place bi la nekk loolu yëpp di firndeel ne na mu jeexale atum 2018 noonee la ko jeexalee ci atum 2019 jiite yëf yi ba jamono ji. ñuy am yaakaar rek moom Sénégal mu wéy di ko jiit te mu ànd ak kii ndam euh, fii ci àdduna bi yëpp Belgique moom moo jiitu. moo uh, wéy di nekk ci uh, kanam ci wàllu lii nga xam ne nag moom moo di football fii ci réew mi dakaar Sacré Cœur am na beneen déggoo boo xam ne wala boog uh, xaatim yoo xam ne xaatim nañ ko ak li nga xam ne moo di ñii di waa CFAO Retails loolee nag li leen ci bëgg dugal daal mooy fexe ba gën a jëmal formation bi ak li nga xam ne jëm na ci wàllu wut ay moyens yoo xam ne mën nañ cee gën a dëgërlu ngir mën a def championnat bu bu mucc ayib ñu déglu ci reportage bu Sode Thiam. mu di ab partenaire bu yees ngir Dakar Sacré-Cœur CFAO Retail nag soobu na ngir daal di jàppale ndaw ñi jaarale ko ci sport Laurent Gaule mooy directeur général u partenaire bu yees boobule. pour ñun am na solo loolu ñu daal di dugal suñu loxo ci lu ni mel ndax gis nañu ni li nga xam te moom la ñuy def fii méngoo na ak suñu gis-gis méngoo ak li nga xam te moo di suñu valeur ba tax na jàpp nañu ni dañu war a encourager li nga xam te di jeunesse bi à travers li nga xam te la ñuy daal à travers ci li nga xamante moom la ñuy def di wàllum sport loolu tax ñu jàpp ni am na solo loolu ñu dugal suñu loxo ci lu partenariat la nag boo xamante ni njiital Dakar Sacré-Cœur rafetlu na ko Mathieu Chupin rax ci dolli sax ni dina am lu bëri lu mu leen dimbalee ci wàllum koppar mu yokk ci ne. entreprise sénégalaise yi sax war nañoo gën a ci li nga xamante ne moom mooy suqali footballu local bi. waaw sport moom fii nii ci Sénégal boo xool dafa xaw a nekk ci contexte bu difficile rawatina lii di sport local bi léegi nag ñun suñu wareef mooy fexe ba jàppale ndaw yi ndax xam ngeen ndaw yu bëri dañuy yëngu ci wàllu tàggat yaram te bu ñu leen jàppalee ci mbir moomu la xëy na dana antu ba tax na fi toll nii ña ñaax li di entreprise locale yi wala multinationale yi ñu def seen képp kàttan ñoom itam def comme ñun dugal seen loxo ci mbir bi ci noonee ngir daal di ñaax autorité yi. ñun nag club yi lu ñu war danañ ko daal def léegi nag li des moo di lii di autorité yi def itam seen wareef moo di euh, fexe ba taxawal ay infrastructure euh, rax ci dool yi tamit bu ñu mënee jàppalee match championnat yi ñu koy jël di ko wane ci télé yi dana doon gëneel ci football local. partenariat bi diggante ñaari structure yi nag ci diiru benn at la waaye ñaari patron yi bu jeexee mën na am ñu yokkaat ko. mu ngi noonu Soda Thiam ci wàllu football ba léegi gune googee di Takumi Minamino moom doomu euh, Japon la léegi nag euh, dem na ci Liverpool loole moom leer na nañ excentré la euh, nekk fële ci Red Bull Salzburg moo ngi am lu toll ci ñaar fukk ak ñaar ci ay at Takumi Minamino moomee ku fës la foofee ci équipe bu ñi nga xam ne ñoom ñoo di waa Red Bull Salzburg. nii di euh, kii di takku mi Mina Mino nag moom li mu njëkk a yëkkati ci kàddu moo di ne am na mbégte bu baax a baax ci euh, dem fii nga xam ne moo di première ligue anglaise ndax foofee ab objectif la woon ci mom nee dafa yakamti lool daldi di yeuf ya fi ci Sénégal nak ni nga xam ñu ngi koy waaj a modi li jëm ci wàllu phase nationale nawetaan yi on war ko amal organisation nationale pour la gestion des activités de de masse lolé nak mu ngi war am ñaar fukki fan japp ñaar fukki fan ak juroom ñen ci weer décembre bi ñu nek budget bi nak bi ñu gu mu ngi tollu ci ñaar fukk ak ñaar ci ay millions ci suñu xaalis waye nak budget bobé matagul suñu sukkandikoo ci euh, ki jité bobu la structure muy wax ne lu toll ci euh, fukki équipe ak juróom-benn ñu ngi koy xaar ñu ko ci euh, région yépp ñu déglu ci Ousmane Yane Thiam ak Cheikh Tidiane Diagne Ousmane Yane Thiam kon ci suñu yeneen jeetaayu xibaar la ñu koy euh, déglu waaye ci wàllu basket bi Gaye moom ku baax la itam ci li nga xam ne moo di ko teg modi mm, ngir mu jité direction nationale technique ci walu basket l'olé nak Baba Tandia mom moko xamlé mune euh li nga xamné nak euh, mom modi moo di euh, nga xamné mom modi Mustapha Gay fofé ñuko tek fu bax la euh, ki fi jité won fédération sénégalaise bu basketball mon moko xamlé di wax rek ni nañu gaaw nak jox koy jumtu way yo xamné mom directeur technique national bu bees bi mën na liggéey ngir ñongal basket bu Sénégal. alaaji Makumba Bey mu ngoog kon nag mu nekkoon xibaar yi tàggat yaram yi quartier vert ñu ànd ceeg Amadou Sabar Ba dal leen ak jàmm ci quartier vert conférence bu mbootaayu xeet yi nga xam ne ne moo doon waxtaane lépp li nga xam ne ne mooy changement climatique maanaam COP 25 ndaje loolu jeex na ci dimanche ji ñu génn ca Madrid ca Espagne waaye dëkk yi fa daje woon daanaka ponk yu bëri yu ñu doon waxtaane amuñu ci déggoo ci ñàkk déggoo boobu bokk na ci li nga xam ne ne mooy marché carbone bi te lii di article 6 tënkoon ko ci waxtaan yooyu ñu amaloon ca Madrid ñu déglu ciy leeralu Youssouf Bodjon article 6 bu accord de Paris mooy bii wax ci li ñu naan marché des émissions des crédits carbone wala sañ-sañ bi réew yi am daal di bàyyi gaz bu bon bi ci jaww ji loolu nag ñu war ko weccee ay financement yoo xamante ni dina tax réew yu néew doole yi daal di sukkaliku mbébét boobu nag mujjuta antu donte sax waxtaan nañu lu toll ci ñaari semaine ak euh, benn fan ak yu tege ponk boobu nag yiitaloon lool réew Afrique yi nga xamante ni demoon nañu ci COP 25 boobule marché carbone bi li ko tax a jóg mooy fexe ba wàññi émission des gaz à effet de serre ci àdduna bi loolu su amee dina tax ba réew yi nga xamante ni góor góorgóorlu nañu ba dépassé wuñu quantité gaz bi nga xamante ne ñu ngi ko bàyyi ci jaww ji Afrique nag bokk ci réew yi nga xamante ni ñoo gën a néewle ndax téeméer boo jël ci gaz yi nga xamante ni moom la ñuy bàyyi ci àdduna bi ñeent côte mooy bàyyi ko Afrique moo tax Afrique bëggoon ñu waxtaanee ponk boobu boobule di article 6 su ko defee ñu gën a dëgëral mbir mi gën ko leeral waaye ca mujjantal ga délégué yi bàyyi ci ñaari téeméer réew yi dañoo décider ni ponk boobule dañ koy waxtaanee ci COP bi di ñëw li nga xam ne ne COP 25 boobu sax ak président bu commission environnement bu haut conseil des collectivités territoriales moom di rafetlu liggéey bu am solo bi nga xam ne délégation sénégalaise bi nekkoon ca COP bi def fa Chérif Habib Aïdara di ci teg ne bëggul dégg ñu naan COP bi dafa échec di xamle ne yenn résultats yi dal na xel Chérif Habib Aïdara di wax ne Sénégal moom gis na ci boppam ndax xaatim na benn convention ak waa Allemagne ak ñii di Fonds vert euh, pour le climat ci benn subvention boo xam ne toll na ci fukk ak juróom benn milliard ci suñuy koppar loolee yëpp nag ñu jagleel ko lépp li nga xam ne ne mooy ñoŋal lii di biodigesteurs yi wax ci leneen centrale xam ne ñom ñoy défenseur li du environnement bi té nekk ci bobu les communes ginnaw juróom benn weer biñ ko commencé ba tay activité yi daanaka lépp a tagga Abdou Diouf Diagne daje na ak ñom ñu déglu ci reportage am dañu koy dakal wala duñu ko d'akal. Central à charbon bi nga xam mo moo nekk ci Bargny mu ngi bayyi ay jéxantal ci gox boobee les ngelaw lañuy ñuy noyyi lépp tooke la suñu sukkandikoo ci Fadal Waat mom moy président bu réseau bi ëmb association yi nga xam ne ñoom ñooy xeex ngir topato environnement bi li polluer air polluer atmosphère bi nekkatul sax lañu doon tit muy la doon jóge ci cheminée bi mais dépôt yi ñu def fofu muy dépôt charbon bi ak dépôt euh, cendre bi euh, mo andi pollution boobu toké yoy nekk ci ngelaw li tay yenn ci askan wi di nokki moo tax mu daldi fay indi ay wop yu melni tuberculose kiko xamné di Fatou Samba mo mo jité jigen ñi nga xamné ñoy ñooy soppar ñi jën te nekk ci site bi ñu du pexel kom dañ doon def ben audi communautaire am ñu xamante ne rus nañu sax ñëw tok fi ñepp tok di wax dama mujjee jël xale bi ma àndaloo ma ko dama nga déglu na peut être man amna na luñ ma rusé mais bu dé yow man nañ wax sen soxla mu ne ko nak li tax ñu bañ duñu ñew fofu non dañu xamné mënu ñu la wax kan ak kan mais tuberculose bari si minam bi boo ñu ko seetloo léegi mooy bi centrale à charbon di daw baykat yi tamit jël nañ seen wàll ca nar wa mais ba ñu béyee côté bii nekk noonu yëpp dañu gis ne boo demee si kaw kànja gi da gis ni këriñ gi nekk si kaw kànja gi ba xar yi ko lekkoon yëpp minam xar yooyu dee napp di activité bi nga xam ne moo ëpp solo ca ñi moom tamit daal dinay dund ay jafe-jafe ndax centrale boobi lee jën yi dañoo nemeeku ne seen lim dafa wàññeeku bu baax baax bi ñu koy commencé ñoom dañ ne degré ndox bi nga xam ne mu war a fekki ndox bële ni mu war a toll degré ñom ñu né def nañ seen circuit fermé mais nun li ñu constater moy jën amatu té heure bi da daan fekk ñu liggé mais fi mu nekk jën yi kaal yi ngi jowalu ñi ngi jifer ñi ngi ba pañju ci fatali central à charbon bu barñi sendu juroom benn weer rek la daal di dox jamono ji dafa pan te la ko wara défar ñu daal di koy nat ci ay koppar yu bari quartier vert jeex na dig daje alxamis bi di ñëw xibaar bi ñu dab léegi mooy euh, cat bu mar arrêté nañ ko teg ko loxo mu ñeel mbiri oto boo xamante ne ni nag da koo yor ni moo ko moom ñu ni ko foo ko moomee munta génne ay preuve ci xibaar yi ñu ci njëkk jot des na ci dellusiwaat ci kanam tuuti wala beneen jotaayu xibaar.